عملكم asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax kenn ku nekk turam ak santam tey nag waa ndawal tukki tukkikat ñoo ñëwoon rek pour ziyaare leen ci màggal gi nga xam ni moom lañ jub si muy woote boobu nga xam ni Serigne Touba moo ko woote woon eh, di wax ni nañ ko ci bis bi bu dikkatee ñu santale ko ci suñ boroom kon nag loolu moo tax tey ñu ne nañ ñëw rek def tuuti vidéo pour rek euh, ziare suñu mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci yoon wa di màggali ñu ngi siyaare bu baax nag suñu sëriñ suñu xarit sëñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak sëñ Bass Abdou Khader suñu sang boobu suñu soppe boobu suñu xarit boobu nga xam ñoo ko bëggal suñu bopp ñu ngi ziare ñëpp di ziare ahlu gi yëpp euh, di ñaanal ñi nga xam ni ñooy waaj dem tuubaa ñi ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne dara taw ko yàlla na leen yàlla def yoonu jàmm ak salaam dem ak jàmm ñëw ak ñëw jàmm te lépp loo xam ni ñaan ngeen ko fi ñu ngi ñaan ci darajee Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasool yàlla nañu ko bokk tasaare ko ci àddina bi yépp Sénégal am jàmm ndax Sénégal su amee jàmm rek ñun ñëpp dañuy am jàmm ñi ngi noonu lañ koy ñaanalee ñi nga xam ni nag ñoo nekk ci oto yi di jëm tuubaa ñu xam ni ay bakkani jàmbur lañu yépp ñu def ndànk ndànk dem ak baa ñëw ak siin noonu lañ koy waxee ba tam ci jigéen ñi nga xam ni ñooy dem di màggali ñu xam ni dem Touba du ay caaxaan dem Touba du puukare dem Touba du solu ak simmiku dem Touba liggéey la màggalug Touba liggéey la jaamu yàlla moo tax lañ fa woote woote wuñ fa puukare woote wuñ fa solu ak simmeeku woote wuñ fa puukare te ñin ñi nga xam ne dañuy dem di fekk ay nit Touba di daloog ñoom sooy dem nga jënd saako pombiteer saako soble loo am nga jënd ko yóbbu ko day tax màggal nga gën a neex ndax bu ñuy booy ñëw moom ki nga xam ne moom ngay dalal si lu dul ne jëndal ma dara waaye nag dana rafet lool nga ñëw indaaleel ko dugg indaaleel ko yaa xam soble la pombiteer yaa xam saabu raxasukaay la yaa xam sax ay bale loolu lépp da cay baax ñu ngi ziyaare tam ba tey xale yu jigéen yi nga xam ne dañ fay dem xale yu jigéen yi fay dem tam teg sa greffage bu gudd euh, sot say we ba mu gudd liggéey taxu la faa dem xanaa yow soloog simmeeku dugg dëkk bi wër fenn fu ne nga xam la ñu añeeg la ñu reere loolu Serigne Touba wootewu ko Serigne tubaa jaamu yàlla la woote dañu woon bis bi bu del seet bis bu ñëwatee nañ ko ci santale borom bi kon yaakaar naa fu ñu woote sant borom bi dangaa war a dem futteeku liggéey tuubal sa bopp tuub bàkkaar yi nga mas a def ci àdduna yépp nga tuub ko lu delluwaat ci yàlla te xam ni ki woo woowu la ci puukare def laa woo ngir yàlla ñi ngi ziyaare bu baax nag sama sëriñ ba sama xarit ba sëñ Maam Mbàkke maa ngi lay siyaare bu baax balaa maaram ay saaj saajo di la ñaanal gudd fan sëñ Maam bu itali naka noonu laay nuyoo sama sëriñ ba tam euh, sëñ Cheikh Mbacke gaynde ma maa ngi lay ziyaare di ziyaare sax lu Mbacke gépp mag kenn di tuub bu baax nag leen sukkal di leen raamal di ñaan yàlla na ngeen ñaanal ñu bu baax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi su dewee nekk jàmm suñu borom man ñoo defal xéewal ñu fekkee màggal ga ci jàmm ak. kon nag jërë ngeen jëf ñi ngi yemandi fii nag xam naa nii di ñaan yàlla fekkee ak tal ak wér ak wér la lépp luñ fa ñaan yàlla sotti ko ci àddina bi yépp ñu dund ba fekkee ko ay ati ati ati at barki seexul xaddim dund ba di ko def ay téeméeri at lu tegal ñu ngi ziyaare ñépp kon nag safar yi daw leen ndànk ñii dem tuuba def leen ndànk njëkkante bi di ziyaare njëkkante bi di kii ñi nga xam ne dañoo yor tension feebar ngeen xam ni lekk guddi gi ngeen xool nu ngeen koy organiser ba du ngeen ci am benn jafe-jafe ñi ngi gërëm ñépp di ziyaar ñépp di wax boo màggal incha allah bon màggal 2018 incha allah yal nañ ko teewi ay déwén yu bari jërë ngeen jëf ak ndawal tukkikat rek ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf.